sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV dinga ci gis sa bopp jànge falun émission ci le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér Eh, jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba loolu nag benn ko déggee xam ne tey ñu ngi fii ci Touba Mbacké li ñu fi indi nag mooy li nga xam ni moo ñu yóbbu ci bépp dëkk ñun waa Ladoum TV muy la première chaîne spécialisée pour la promotion de l'élevage et de l'agriculture au Sénégal tey ñu ànd ak yéen fii ci Touba Mbacké jëlee nañu am na loo xam ne dinañ leen ko dëgtal muy foire bi nga xam ni muy foiru alet alet nag boo ko déggee muy association élevage Ladoum Touba Tayssir ñu ñëw ak yéen tey fii ci seen douzième édition nga xam ne parrain bi tey ñi ngi ko jagleel ñi ngi ko dara jaale ki nga xam ne mooy Balla Gadiaga nekk un jeune boo xam ne def na lu rëy ci élevage donte bi mu ci diggee yàggul waaye mu indi fi touche bu rëy marque empreinte am ci élevage Touba ci élevage u Sénégal sax laay wax tey waa Touba dara jaale ko bis an ànd nañoo ak moom nag jëlee ko fële nga xam ne foofu la déparé muy bergerie Galoya bu président Aboukan mu nekk acte bu rafet boo xam ne Balla Gaye def na ko ñu ànd ak moom ànd ak convoi bi ñëw moom tey fii ba Touba ànd ak moom dugg si visite box boxi lépp nañ leen ko dëgtal fii ci seen télévision Ladoum TV dinañ ànd ak yéen dugg ci biir foire bi wan leen box par box wan leen cérémonie officielle bi wan leen lépp loo xam ne xew na fa rawatina concours yi ki nga xam ni moo jël pee ci concours yi jongante bi lépp nañ leen ko dëgtal fii ci seen télévision Ladoum TV man ak yéen ak waa Touba tey léegi rek ci kanam ñu dugg ci biir box yi leen li nga xam ne moom lañ fi jëlee incha allah Sen TV mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire waaw ñu taxawak ak euh, grand champion borom euh, Mbor Fall élevage muy Cheikhouna Cheikhouna Ladoum TV nuyu nañ la. a Seydina Aliou waaw Ladoum TV maa ngi fay di leen ziar bu baax di leen jaajëfal di leen di leen gërëm bu baax jaajëf. Euh, Cheikhouna ñu ñëw fii tey douzième édition Faaru Alet fekk la nga exposé trois box lan moo war lool wane doole la wala lan moo war a lool. ah de Seydina Aliou ba douzième édition bi boo gisee ma trois box. mooy dama dëkk Touba dama juddoo tubaa yaroo Touba màgge Touba moo tax eh, daara nag laa nekk moo tax xar foofu laa yore moo tax bu Touba aaye bu Touba aaye foire man damay jël li ma yor lépp dama koy indi exposé ko Touba ngir sigil Touba macha allah euh, mu nekk lu am solo comme ni ma wax rek ñu ngi ci deux dix douzième édition foire Alert tey nga ñëw gis exposition bi euh, tey nan nga jàngatee liggéey bi nga xam ne tey waa alet liggéey nañ ko muy waa Touba. ah waaw waa ALED de moom liggéey bi ñu liggéey liggéey bu am solo lañ ci liggéey ndax boo gisee daaw li ñu woon daaw bokkul ak li ñu exposé ren boo waree foire bi yëpp koo laaj loolu lay wax loolu ma xam ne càmm gi daal mi nga dox biir Touba baax euh, tamay ñaax sama moromi éleveurs yi nag mooy ñu gën a jàpp càmm ak Touba bu baax gën koo doxal caay allah mu nekk lu am solo ñu gis nga exposé ñetti maar yu doy waar muy yéene ak euh, Dof Ndeye ak Koppar xam naa dañ lay bàyyi rek nga présenté ñu ku nekk benn par Ah, waaw seet naa waaw bee mooy koppar koppar moom doomu maxu la doomu maxu la kenn moom maa ngi ko jëloon ci ko ñu wax Modou léegi nag yi ci des moom yi nekk ci biir gerte bi yëpp maa ko ay doomu Dramé lañ ak doomu Pabis ak doomu Pam Ndaw yooyu yëpp moom maa ko juddloo waaw incha allah dof nay maako ko juddloo même dof nay moom mi ngi woon Thiès ci Baye Euh, sama benn mbok sama xarit sama lépp ah, moom laa ko joxoon léegi bi ma bi ma ko yoree bu foire bi ñëw mu ne ma Dof Ndeye il faut nga indi ko ci foire bi ndax doo bokk ci ma ne ko waaw Touba bu ayee lépp lu ñu yor dañ koy indi exposé ko fi won ko nit ñi ñu xam ne càmm ak mi ngi nii jaay. ba léegi des na beneen maal muy yéene yéene doomu kan la. waaw yéene doomu Carlo di la kooku moom maa ngi ciy sant sëñ Galas bu baax dafa faa yóbbal leen famille mu am doom mooy maal boobu mu ñaan yéene moom mi ngi toll ci 16 mois moom doomu Carlou la moom boo gisee lu tax ma exposé ñett box andi trois jeunes mâles boobu am na sax yu ma fa bàyyi waaye damay wane ne maam liggéey bi fii lañ tollagun maam bu ëllëgee ñu indiwaat leneen won ba xam fii lañ doon éleveurs yi xool ba xam liggéey bi maa ngi doxal wala doxaluma loolu laa jublu. lan mooy wax tey euh, Dramé gis ñu ko tey ci exposition waaw Dramé moom euh, moom mi ngi mboor euh, moom mi ngi daara dama dama xam ne xar boo indee sa juróom-ñetti doom yaakaar naa foire boobu wutatoo fa dara moo tax ma bàyyi ko fa andi yeneen xar yi andi naa it ay doom yu góor andi naa doom yu jigéen moo tax ag ay sëtam moo tax moo tax ma bàyyi ko fa ak coono beeg yooyu mag doon doon mag moo tax ma bàyyi ko fa macha allah mu nekk lu am solo muy liggéey boo xam ni ku ne teg na ci bët liggéey bu am solo tey Cheikh naa ku bëggoon ñëw euh, Mbor Fall élevage fan lay jaar wala bu nekk Daara jolo fan lay jaar Mbor Fall élevage ba egg si foofu ak yan contact la mën a jaar ba jot Cheikh na waaw Seydina Ali Mbor Fall bi nekk Daara Jolof mi ngi nekk quartier bu ñu naan Daara Mbayeen euh, ci école boo ñëwee ba ci école bi boo jaadee sa gauche ci boulangerie bi boo jaadee sa gauche daanaka troisième kër quatrième kër da nga àgg ci gétt bu dee Mboro nag euh, quartier bu ñu naan Gunaas boo ñëwee foofu boo laajtee fu gétt gi ne war nga woote ci numéro Aliou Diop moom moom moo fa nekk sama rakk la moo nekk foofu ak Lam Fall 549 41 06 mooy numéro Aliou Diop bi ci Mboro moom moo nekk foofu bu dee Daara Jolof nag mën ngaa sama numéro 614 06 81 nga laajte Cheikhouna rek danañ la woon kër ga. macha allah Cheikhouna ñu ngi lay jaajëfal. waaw jaajëf seen naa la man tam maa ngi lay jaajëfal di la sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal te di la wax nga ñaanal ma ci barke Sëñ Tuubaa jërëjëf Ladoum TV mooy sunu télé Ladoum TV di fa am fi ma léegi rek ñu des ak yéen fii ci foiru Alette muy douzième édition foiru Alette euh, taxaw ak un grand champion muy Abdou Lahad Ndongo Abdou Lahad nuyu nañ la. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah Seydina Alioune ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen ziare bu baax a baax a baax di leen si souhaité foiru jàmm ak salaam yéen ngi fii ci foiru Touba bi man la Abdou Lahad Ndongo borom bergerie Yafatou Touba Aliya. macha allah Abdou Lahad tey ñu ñëw fekk si ngeen dalal ñu. Euh, ñu gis exposition bu rafet macha allah tey nan nga jàngatee élevage Touba. waaw jërëjëf Seydina Alioune loolu moom boo ma ci laajee dina sawar a tontu ndaxte wax dëgg fa yàlla euh, élevage Touba bi yaakaar naa euh, yéen ñëpp teg ngeen si seen bët am na yokkute bu baax a baax a baax a baax ci wàllu femelle ci wàllu maal sama yaakaar. waaw parce que daal wax dëgg yàlla gars yi fi ñëw yëpp visite fi ñëw yëpp apprécié nañ ñeneen ma am na yokkute bu baax a baax a baax a baax allah. macha allah mu nekk lu am solo ñu gisee nga exposé ñu maal bu rafet macha allah muy doom si Dramé euh, lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw jërëjëf euh, kii ma exposé tey mooy doomu Dramé di mal bi euh, Dramé moom ku xam xam ci ligne bu mbokk kii ma exposé nag doomam la tudd Mido Mido di doomu Dramé di sët ci Biram Njéeme ndaxte yaayam ci boppam. benn doomu Biram Njéeme boo xamante ne bi man maa ko yoroon moom moo ko jur benn doomu wele te wele ku ko xam-xam ne Biram Njéeme moom mooy baayam waaw benn doomu wele bu ma yoroon nag moom moo moom mooy moom moo jur yaayu yaayu yaayu bi waaw. allah mu nekk lu am tey ku bëggoon ñëw bergerie Kër Yaa Fatou euh, tey fan lay yan adresse ba egg si foofu. waaw euh, bergerie Yaa Fatou moom mi ngi si. Alieu Alieu kooku xam-xam ne dëkk la boo xamante ne bi sëñ Fallou moo ko sancoon actuellement mook Touba xattaloo noonu kenn mënu leen xaajale ndax euh, euh, kii xalifa bi nga xamante ne bi mooy xalifa ñoom Serigne Galas Amina foofu la dëkkee man maa ngi Alieu bergerie Yafaat foofu la nekkee adresse bi nag ku ko bëgg da ngay jël numéro bii ma leen di waaj a jox euh, 77 395 84 83 wala 76 630 59 19 ok macha allah Abdoulaye jaajëfal nañ la bu baax. jërëjëf Seydina Alioune maa ngi maa leen gën a bég maa leen gën a bég bu baax a baax jërëjëf. Somebody